Maxar Diop laa tudd waaw ten maam Cheikh ten maam Cheikh fii Touba rek fii waa ci booru forage bi waaw man daal dama xawoon am jaaxle la parce que sam euh, doom benn doom euh, deux mille deux mille treize euh, deux mille lay war doon daal xam na war naa am ak ci la judd waa war na am seize ans waaw léegi maa ko doon jàngal far yàlla dogal seytaane lu ndaw jóg rek ma amoon ak moom tuuti wax rek yaay ji ne ko dawal mu dem daal depuis bi bi ñuy um soxban ba nga ni daal gisuñu ko war nañ ba sonn amuñ ci moom benn benn nouvelle waaw ëpp na ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñeent sax ñaar fukki fan ak ñeent ñaar fukki fan ak juróom yooyu waaw booba léegi daal war nañ ba sonn gone yi war nañ fépp waaye daje wuñu sax ku nekk gis na ko waaw te njàng mi fi mu tolloon man moo ci amal solo parce que daanaka tuutee ko dese te njàng yàqu rek laa ci ragal man njàng mi yàqu lan lan moo tax moom mu daw. waa xam naa daal dañoo amoon jote tuuti parce que xam naa amoon na gaañu gaañu ci loxo bi bay bu doon soog a tàmbali. léegi ci après ci la ñu amee jàng na ba wàcc daal ci guddi gi euh, dem ci kër ga ñu am jote tuuti rek yaay ji dugg ci bi ko yaay ji duggee daal ne ko dawal moom mosul daw sax waaye dawal boobu rek xam naa moo ko dawloo waaw dawal boobu moo ko waaye moom mosul daw sax waaw. yaayam tamit xamul fu mu nekk. waaye yaayam tam xam naa doon na jéem a wër wër na ba sonn waaye moom it xamul fu mu nekk mbokk yi tamit xamuñ parce que ñun ñëpp dañ ci dañ ciy jaaxle ñu ngi wootee di laaj bés bu ne ñu ngi wootee laaj dem nañ ci sëriñ sax di seet ak dugg nañ ñoom tamit waaw ba léegi daal amuñ ci benn nouvelle lii ndax mës na ko def wala. non mësu ko def moom kay mësu ko def loolu moom mësu ko def moom waaw mësul liggéey tey c'est la première fois mu def ko waaw. waaw amu benn jafe-jafe xanaa njàng mi moom xaw na metti nag ndax njàng moom bu baaxee day metti waaw que njàng moo da ngay jàng di tari di yeewu njël di jàng di tari guddeeg bëccëg suba ngoon moom day metti moom faaw mu metti loo xam loolu waaw peut amu fa beneen jafe-jafe bu dul woowu. waaw nan la tudd. Moustapha Diop la tudd Moustapha amul tamit benn problème moom problème xel ak yooyu. amul problème xel nag waaye xale bi nag yeewul lool lool nag yeew yeewul muusul daal mais amul xel daal waaye amul muusul daal waaye nag amul benn problème amul benn problème wu rab wala kii amul benn jafe-jafe mais yeewul daal ndax man danga jekk man dama ko yóbbu woon ci yeneen daara yi rek nekkuma woon ak moom waaye bi ma ñëwee bi ma nekk moom ci laa constaté ne yeewul lool lool daal yeewul te noppi na sedd na trop dafa sedd daal tamit waaw fu mu nekk tam day toog rek day toog rek. bariwul ay jafar-jafar daal waaw. bi muy dem yenn yëre yu mel na la solo. waaw mi ngi soloon t-shirt bu euh, xonq ak jiin moom la soloon tegoon na ci benn genre jagar sax waaye xam naa da koy t-shirt bu xonq daal ak jiin la soloon moom mooy li ñuy kii te loxo baaraamu dëy bi tam dafa commencé woon am bëy baaraamu dëyu ndeyjoor bi dafa am woon commencé woon am bëy waaw. soxna Ami Jaw la yaayam tudd. waaw koo gis daal mën na woote ci numéro téléphone yooyu rek. waaw mbaamu jëm a jukki waa teenu maam Cheikh jëm a laaj foofu ci forage bu ñëwee foofu rek bu laajtee daaree suñu Mor Fall daañu ko woon waaw daaree suñu Mor Fall. ngay joxe sa numéro téléphone pour koo xam ne gis na ko. waaw 77 648 08 41 mooy numéro orange bi 77 648 08 41 numéro Tigo bi 76 633 49 52 76 633 49 52.